ou bien li mën nañoo jàpp ne génnam jot na wala je sais pas laaj bi loolu la ñëpp di samp jamono ji ah. ñu ko jàpp nag ñooy seet waaye. <laughs> mu nekk ñu nekk prison moo gën a dangereux waa Pastef xam naa li ñaan yàlla moo ñu bañ koo génne ndax buñ ko génnewul moom euh, combat du am. Hmm? waaw il est voilà buñ ko génnewul combat am parce que euh, day day yàq premièrement euh, temu mu campagne bi. parce que euh, boo ko génnewul thème campagne bi injustice lay doon léegi ñi subir injustice dañoo bari léegi day am benn symbole de l'injustice mhm. parce que day nekk le symbole de l'injustice mhm. ndax dañ naan kii xale la ndaw la parce que xam nga Bassirou nu mu mel da naan dafa neex a jur daal maire ndaw si dañ nekk kii mën nañoo nekk suñu doom ñu xool li muy dund toxul naanul sàccul fenul ay ay ay ay gëm-gëmu politique am tax ñu tëj ko ci kaso bi dañu gis ni jaay doole rek lañ ko lañ ko defal te bo bu ñu ko defee ñu jaay ko doole tëj ko nit ñi dañu naan mais on va tester ñu nga tëj nit jaay ko doole ñu génn ko def ko président def ko président de la République ñu xool lool lu ngeen ci man moo tax te boo ko bàyyee booba dañuy doxal programme ñu xool maintenant. Mhm. candidat yi ñu dem ci xam-xam la. voilà ñu xool parce que day am beneen lecture buy taxaw. Mhm. mais tant que mi ngi ci prison il va être le candidat de l'injustice débat politique du am. kuy wax génneel nañ génn waa ji parce que bu ñu battre campagne fu ñu dem dañu naan yéen seen ñaata doom lañu tëj bu kii jàllee seeni i doom génn léegi donc injustice bi nga xamante ni ñi ko subir dañoo bari dafa am maintenant candidat dafa am symbole. e je pense que donc ñi ko ñi ko jàpp xam nañ ni amuñu benn intérêt politiquement pour jàpp ko amuñu ci benn intérêt léegi te li may wax rek li mu wax euh, wax nañ lu ko def nañ lu ko gën a ñaaw. Euh, ñoom ñi ko jàpp ñu ngi koy cautionné donc je pense que euh, amuñu daal pour man euh, intérêt politiquement pour jàpp bu leen neexal nañ ko tëj te gëm naa ne ñi nekk passif loolu ñu ñaan yàlla parce que fi ñu ne nii bu nekkee prison waxul ku waxul doo def erreur premièrement li mu mën moom Bachir ñi ko dàq ñi ngi ci biti li mu li mu moom mënta multiplier wu mais il y a des centaines de ou bien des des leaders yoo xamante ni c'est des gens présidentiables ku ci nekk à ton côté mën nga battre campagne pour Bassirou kenn dootul kaas ne man sama dëkk Bassirou ñëw fa parce que dañ naan ki war ñëw mi ngi prison <laughs> te da koy yombalal liggéey bi cest mm. moom day tëdd di lekk ginnaaw di xëccoo télécommande ñu ne ko jugal yeewul te yaa war dempale donc de pour man am na ci ay candidats yoo xamante ni sax sonn nañu bind seen programme bëgg ñu waxtaanee programme donc je pense que pour euh, nga yamale ñëpp mooy nga génn ko ñu xool aussi Pastef lan mooy programme ça c'est important parce que euh, ren candidats yu bëri bind nañu proposé nañu seen programme lii laay war a suli bëgg nañoo dégg débat programmatique. Mhm. mais tant que Bassirou génnul mhm. tant que Bassirou génnul le débat c'est l'injustice bi nga xamante ni euh, mu ngi koy dund te sénégalais nag moom président Macky Sall war na cee jàng je pense que li ko tax mu romb fii Idrissa Seck Ousmane Tanor Dieng yàlla na ko yàlla yërëm Moustapha Niass nekk président sénégalais yi dañoo jàpp ne dafa dund injustice loolu moo daloon xëy na bu doon euh, la mu dem seeti Abdoulaye Wade tey kenn waxatu ko Sénégalais yi jàppoon nañ ni Idi mi ngi woon ci benn xeex Sénégalais yi jàppale ko en 2007 malheureusement avant élection bi mu gis Abdoulaye Wade. Hmm. loolu wàññeeku lu bëri ci moom président Macky Sall jàng ci erreur Idrissa Seck. Hmm. ba mu génn rek mu wan ginnaaw euh, Abdoulaye Wade looloo tax ñu romb fi ñi fi nekkoon ñëpp fal ko président. Hmm. président boobu nag mënul toog di jël candidat boo xam ne jël ay ndaw. di muy muy ñuy wàcc ci ñoom loo xamante ne xam nañ ni bu yàlla rek taxee ñuy wax politique kese tax ñu xañ leen seen liberté. Mm-hmm. te liberté dafa foor ci léegi. Mm-hmm. injustice kenn du ko kenn du ko kafe parce que suñu histoire histoire yëpp nag euh, ñi yàlla mës a may ñu am ndam ñëpp dañoo am lu ñu dund lu metti loo xamante ni xëy na nit ñi foofu lañ leen di bëgg-bëgg nit ñi foofu la toll. Euh, man maa ngi soogaa jóge Touba ni damay naan toujours Serigne Touba nit ñi mbëggeel bi bu ngandee mooy li mu daj la injustice bi mu dund dañ ko bëgg bëggeel bu toll li mu daj waaw ndax da ngay ku nekk dangay xool kii li mu daj xoolal xoolal li mu daj lépp rek mhm. léegi mbëggeel bi dootul yem ci na mu waroon yem mais day tolloog injustice bi mu dund voilà je pense que tey loolu moo nar a métti ci élection yi mooy nit ñi dootuñu xoolati ku ne danga koy xool comme sa petit frère comme sa grand frère comme sa doom ainsi de suite yërmande gi day ëpp injustice bi da koy bëgg a faj. faj goo xamante ni nit ñi dañ def seen doole dañ def seen xaalis. Mhm. te loolu jàpp naa ni euh, bu dee ñi am ñi nekk ci ci ci ci pouvoir bi bëgg nañ seen candidat gagné dinañ ko jox ay chance te boobu bu ñu buggee jox ñoom seen candidat gagné mooy ñu may nit ñi mën a comparer candidat wu pouvoir bi ak candidat euh, opposition bi. ñu basé ko ci ay programme mais thème mu injustice tant que Bassirou génnul l' injustice moo nekk le thème de la campagne te loolu. thème bu nekkee ci campagne bi xëy na tamit kon njortu nañu ne moo war a nekk chantier bu njëkk ci ki war a nekk président. mais li ci am solo mooy ñëpp nangu nañu ni problème bi Sénégalais yi am tey mooy problème mu justice. loolu moom ñëpp nangu nañ ko. Mm-hmm. te yàlla dafa def euh, ñu dem ba ci tànn ba pare ñu tuumaal ñaari juge yu mag. Mm-hmm. man de muy lu ma metti parce que sànq loolu yaa ngi koy wax. daf ma metti parce que man damay damay euh, damay naan ay kilifa lañu ko ay mag lañu xam nga tuumaal gor dafa dafa dafa dafa metti dafa diis parce que surtout tuumaal gor bu mënta wax. Mhm. politiciens dañoo tàmm dañoo tàmm loolu tuumaal ay gor yoo xamante ni. te euh, wax ji après li ñuy fuité. du mujj fenn daal di ko fuité ay 3 milliards du ko fuité yoo xam ne leer yoo yow bindoo ko. Mhm. leer ni kii xam nga ni def ko leer nga ni kii mënta wax. Mhm. leer na ni kii mën a koo àtte mais après ñu ñu sànni loolu xam nga euh, bis bu il faut que sénégalais yi xam ni euh, bu doon dëgg sax ñi koy tuumaal waroon nañu am ngor bi toll ni Thierno Alassane Sall def ñu def ko. mooy boo jàppee ni fii am na ku fi kuñ fi war a tuumaal avant say intérêt di ñuy menacer say intérêt nga waroon wax ni kii kii taq na ci lii. Hmm. waaye bàyyi ba say intérêt menacé wu ngay wax ni kii taq na ci lii man Xaadim Bamba mënuma gëm nit ku mel noonu parce que boobaa dëgg taxatul say intérêt la ñu menacé nga jéem a ngay faj mer. Thierno Alassane Sall jàpp naa ne acte bi mu def dooy intérêt moom menacé wu. Hmm. mais réaction bi PDS def. mooy ñoom parce que dafa am lu ñu ñàkk ñu ne léegi nañu nañu nañu nañu wax loo xamante ni même bu dee dëgg la fa nga ko waroon waxee mooy ba say intérêt menacé wu. mais bu say hmm. intérêt menacé nga nga taxaw xeex mooy bu say intérêt jàlloon da ngay noppi. parce que ñoom comme si dañoo woote résistance. non en fait. waa PDS quoi je veux dire. non moom wax dëgg yàlla euh, <laughs> man damay naan man man li ma metti man li ma hmm. metti ci élection yi. Hmm. mooy ku mel ni Abdourahmane Diouf. Bougane Babacar Diop. ñoo ñu xam nga politique doo rek élection. Mhm. dafa am animation espace politique bi. Mhm. ñoo ñu pendant un an deux ans trois ans ñi ngi anime espace politique bi. waaye te ñooñu dañ leen soxla woon. ñu toog sax di wax wax xam-xam animer espace politique imaginez le plateau bu ñooñu seqoon. non gis nga li metti ci élection yëpp loolu la des gens qui ont animé pendant un an deux ans espace politique bi di wax am seen i nit di dem a ko ñëw fu na ñu dugg fa ñu xëy suba ne leen bokk leen am ku tëdd feneen xëy suba ne ñu ne ko day bokk euh, wutuwul ay parrainage. di wute parrainage élu c'est-à-dire que sonnul ñin ñin nii sonnee pour wute ay signature éliminer nañ la rek nga léegi ñi ay sàcc lañu wala ay affaire demee mhm. parce que y a une chose boo xamante ni muy parti démocratique sénégalais muy parti socialiste mhm. ñi ko jiite dañoo war a xam ni parti yooyu ay patrimoine lañ mhm. dafa bokk ci histoire u Sénégal tout à fait mais ce qui se passe au PDS c'est c'est extrêmement dangereux et ça fait très mal euh, on ne peut pas avoir benn nit bëgg a nekk le problème d'un parti et puis ñëpp gëmm seen bët muy continuer nekk ñu jàpp ne mën na nekk la solution depuis 2004 ba Idriss di génn naan j'étais un j'ai été un excellent fils d'emprunt en attendant la maturation du vrai fils <laughs> mais quand ce fils la est devenu mature euh, Pape Diop a perdu la mairie de Dakar non parce que les gens disaient que ni bu Pape Diop gagné Karim Wade mooy nekk maire mooy nekk maire Pape Diop perte ko 2012 ni ñuy jàpp ne Abdoulaye Wade mag la bu nekkee président c'est son fils mooy def mooy mooy mooy mooy nekk vice président euh, gars yi bañ a fal Abdoulaye Wade au lieu que ñu organiser pas bi jeexal ñu ne noonu nañ jël parti bi léegi jox ko Karim Karim jël parti bi mais parti bi nit ñi di dem di dem di dem di di jeex ba 2019 nga xam ne yow mënoo nekk candidat générosité bii Pastef am tey Ousmane ko am tey xam ni moom mën naa bañ a nekk mu am lu mu sauvé bàyyi dem reculer keneen ñëw xam nga loolu tax. stratégie boobu la ñu jàppoon ni mooy xew 2024 ba tax ñu jàpp Ousmane Sonko. ndax en 2019 ba ñu jàppee Khalifa Sall ak Karim Wade dafa neex dañ leen jàpp. kenn fëlul ci langue gi. kenn noonu ñooñu PDS <laughs> ne moom. tànnul kenn jàppalewul kenn day banque loxoom. waaw xam nga loolu dafa neex xalifa Sall tamit dem jàppale Idrissa Seck Macky Sall gagné fi base xalifa Khalifa nekk parce que booy jàngat da ngay jàngat ñaata li Macky Sall gagné gagné gagné Dakar. Mhm. dalee leer ni. am na ñu bëri ñoo xamante ne ànd nañoo Khalifa Sall il dañuy wax naan en deux mille dix neuf. Mhm. bu Idrissa Seck gagné woon day def deux mandats. Mhm. mais bu Abla bu mag Sall gagné deux vingt quatre day jeexal day am élection yu bees vaut mieux que ñu bàyyi Macky mu gagné que Idrissa Seck di gagné. Mhm. à partir de sa moment day am ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm c'est-à-dire da ngay bëgg ba ngay bëgg yow ki lay ki lay noot da koy bëgg c'est-à-dire que ak. xali ak euh, non waa xalifa xaw ma nu taxaw Sénégal daañu amoon intérêt à ce que Macky jàll deux mille vingt quatre mu jeex. Mhm. parce que boo xoolee seen électorat électorat Dakar moom ni ko makk gagné warul woon warul woon nekk yoon koo xamante ni contrôlé wul maire yi. koo xamante ni jaa ngi jàppale benn candidat bu nekk au pouvoir boo xamante ni presque bu ko Ousmane Sonko réewul ñoom ñaar ñoo tolloo woon presque Dakar ça veut dire que nii euh, loolu la APR jàppoon ni bu ko defee 2024 tey Ousmane Sonko. Mhm. Pastef du dem du am beneen stratégie. Mhm. or Ousmane Sonko dafa jàngee ci ñële. Mhm. mais le malheur est que un parti comme le PDS. demul élection 2019. demul élection 2024. mais après lan mooy des ci parti boobu c'est-à-dire que benn nit mënul nekk le problème d'un parti. et puis les gens du parti defa ni mën naa nekk la solution. parce que PDF ñu ñëpp ko bokk. mais lii ñu koy seetaanal nii bu demaatul ci élection yi deux mille deux mille vingt quatre PDS day disparaître. kon avenir am politiquement jeex na. non munoo raté ñaari élection tey ban maire bu mag ci Sénégal la PDS jiite ban. suma ko de ban maire il a fallu que yeewi wàllu ñu am ay député ñu am ay député yu taxaw assemblée te ak comportement bi seen député am gëw ma ni beneen parti dina nangoo demaat ak ñoom coalition. Mhm. maintenant parti boo xamante ni mais li tax euh, suñu borom bañ. donnante parce que mhm. moi je dis souvent boo jàng histoire yu yonent yàlla Ibrahima ak Ismaïla euh, xëy na ñoom njaasi ñoom ma ci tane man nit ñi dañ ci gis rek ni yàlla wan na ko ci gént mu rey doom ci mhm. mais ma moi je je je au-delà de ça jàpp naa ni li taxoon yàlla sant ko moom loolu test boobu mhm. moo doon est-ce que yow bu ma wàcce woon atte boo xamante ni day rey sa doom est-ce que pare nga pour rey sa doom ndax mënoo mat njiit te parewoo pour yamale sa doom ak ñëpp. tout à fait mais le fait que mais un parti kenn du ko donnantey. Mm-hmm. et puis li ma ci metti mooy dinañ seetaan PDS ba PDS de ça disparaître parce que man damay gis ay nit ci PDS ñuy wax ci turu PDS nga xam PDS. parce que ñun ñun man bokk xam nga laa xam soppi mooy changement. 2003. Mm-hmm. <laughs> billahi 2003 lay wax sama benn frère mënu ma non soppi parce que da ngay topp soppi soppi soppi ba mu dem après nga dem man pour man soppi mais xam ni soppi mooy changement pour vous dire que un parti nu mu traversé ay génération nit ñi mhm. nit ñi dugal ko seen biir mais ñu topp nit koo xam mais ça me fait mal